téléphone 77 394 73 73 agence Techno Habitat mooy ca Habitat offert. benn mbir aussi moo ngi nii boo xamante ni lu mat a bàyyi xel la mooy sunu Sénégal ak sunu consommation euh, dafa am solo man tey dama am gàcc man dama ne Sénégal tey waroon nañoo toog leneen lañ leen dañ koy jéggaane ci bitim réew. lu dul lekk xoolal ñetti fan a ngi nii kenn soosut cappul téen kenn ponsewul kenn xampul soosul mburu ne mes ne menteñ kenn te gubbët ndax lan ñi koy lakk di ci liggéey ñoo grève ndax ñoom nee nañ dañoo bëgg yokk mburu mi deux cent francs hmm? euh, ñi nga xam te ñoom ñoo di mëñ yi di yëngu ci wàllum fariñ bi dañoo am jafe-jafe yokk nañ seen saag bi parce que tout simplement aussi bele bi dafa cher te bele bi ku nga xam ne coupe mondial la Sénégal amuñ bele dama ci ñëw sur les faits d'abord sax euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo di boulanger yi kenn demul ñu des ñi ngi bëgg aussi condition de travail yu am maanaam ñu fexe ba yokk mu njëgu mburu mais ñaata nit ngay gis dem ci boulanger yi fekk lañ fa lañ leen di fay baaxul amuñ fa contrat amuñ fa dara bala nga naan naam ne fa te loolu moo am ci dans les entreprises sénégalaises ñoom daal boos yi patron yi ñoo nekk ci kaw rek di yaataa yëmbee di gundaan ndaat di neexle maintenant li tax mu bëgg a jàngat ci consommation bi ñu ngi wax autosuffisance en riz président Macky Sall mi ngi dem Paris sur le forum euh, le forum sur la paix bi am foofee ak l'urgence euh, climatique ak la situation en Libye ñu koy waxtaanee ca Paris mais ñi ngi fay wax autosuffisance en riz mais depuis 2017 ñu gëm la autosuffisance en riz dañu ñëwoon 2017 Sénégal day baawaan ci wàllum autosuffisance maanaam moomal boppam ci wàllum koom ci wàllum dund lekk lu muy jëfandikoo est-ce que am na bu mbas mi ñëwee à tout dévoilé cette pandémie moo tax ñu ngi passé ci post Covid ginnaaw mbas mi bu jàllee naka lañ mën a dundaate mais dama jàpp ne Sénégal man nee naa mënoon nañoo jéggaani xëy na matériel électronique donte am nañ fi ñu xarañ sax ñoo am xamoon ci wàllu matériel yooyu mais amuñ moyens yi ñu koy mën a defee ba man di créer yeeg yooyu mbirum automobile oto et cetera tout ce qui est électronique mais wàllum lekk Sénégal gi am àll bu ne nangu fa yaatu lool am géej gu bëri lool am ndox am naaj bu tàng jër am am am jeunesse bu dévouée engagée une population jeune ce qui manque des pays européens boo demee lu mel ne Allemagne la population est vieillissante ak yeneen réew nga am main d'œuvre boobu ressources humaines boobu nga di ko caaxaane di toog di tey jii ñu toog ci Sénégal ba deux mille vingt et un fukki at ba ñu moomee suñu bopp ba tey Sénégal cure-dent sax da koy importer c'est pour un pays qui se veut développer et que cela interpelle nos dirigeants gis nga réew da ngay am volonté politique réelle engagé da ngay gëm sa bopp patriotisme dafay am mais patriotisme économique aussi dafay am maanaam fexe ba man néewuma du ma jëflaan le monde est, est, est nous sommes dans un euh, dans un dans le monde est globalisé la c'est c'est c'est c'est la mondialisation ah flux yi nit ñi dañuy jëflante interactivité ah interaction interdépendance mënul ñàkk mais man li nga xamante sama dama ko moomal sama bopp waaye kenn waruma ko ëppale malheureusement tel est le cas Sénégal tey jii cure-dent mouchoir brosse à lépp dañu koy importer te am fi àll bu ne gàññ baykat yi soble yi boo demee Kër Moussa seen soble si nëpp di yàqu parce que lan nit ñuy nit ñuy fexe ba ñi jógee bitim réew yomb leen lépp ñu ñëw fii ñu def la neex te alors ko suñu local bi suñu consommé local bi nekk fii ñu war koo mën a jëfandikoo loolu aussi état moo ci war a bay rôle bu am solo moo tax li am ci wàllum làkk mburu mi je pense que war nañ ci trouver une solution durable du première du ñaar du ñett du gulet les boulangers di grève du guleet les meuniers di grève te loolu l'État doit jouer un rôle important à travers le ministère du commerce le ministère du commerce teguñ ko fi rek pour demi séminaire ak yu kenn xamante dem conseil des ministres da nga war a wàcc sur le terrain prix ñu ne dañ ko wàññi est que dëgg la est-ce que njaay mi ñuy jaay est-ce lii baax na est-ce que suñu baykat yi ñu ngi leen di jàppale est-ce commerce mi ngi dox loolu lañ lay liggéeyloo à travers de la direction du commerce mais rien Sénégal nag comme politique bi dafay jël lépp H24 dañuy politique 365 jours dañuy politique moo tax li ñu war a def les questions de l'heure yi war a xalaat souvent dafay poser équation te jii gis nañ ko tous les secteurs ñi ngi souffrir ñi ngi am ay jafe-jafe loolu nag l'État est principalement responsable bañ koy dénk suñu réew dañ ko wax ne ko dañoo am ay jafe-jafe moom mu gis suñuy jafe-jafe ne dana ko saafara kon il est appelé et il dans son de jouer également